institut supérieur des sciences et métiers de la santé ak it UFR des études islamiques et arabes tàmbali nañu ni ki tey jilee ab tàggat gu yaatu gi nga xam ne jagleel nañu ko kat yi ndaje mi nu mel Serigne ba Badawi Mbacké mi jiite complexe bi moom moo ko dal di taxawee bëgg-bëgg gi nag du lenn lu dul fexe ba weccoo gu yaatu dox ci seenub diggante ci lu soxal système LMD. actuellement njàng mi nga xam ne moom lay jàngal ci àddina bi euh, LMD lañ ko tuddee enseignement supérieur moom LMD la Euh, dañ doon wax ay dëgg di wax ay licence di wax ay maîtrise di wax ay DUA waaye am doctorat léegi nag dañoo am benn format boo xam ne format bu bees la boo xam ne nii dañoo mettre en place une tuddee LMD LMD mooy licence euh, master ak doctorat mais day am loo xam daf ko ëmb li ko ëmb dafa bari du ñëpp ñoo ko xamandoo léegi comme ñun ñu ngi tàmbalee ci LMD léegi bu ñu defee lu mel nii lu ñu mën a tàggat jàngalekat yi ñu xam lan moo LMD. tàggat gi nu mel nag bu nu sukkandikoo ci ki jiite UFR santé dina tax ba ñi leen di jàngalekat yi xam bu baax système LMD li mu làmboo waaye it ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi. apport bi mooy ndaje bi dana tax ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale euh, seen xam-xam ci wàllu système LMD bi ñu doon wax léegi nii. ak ci wàllu pédagogie nan ngay jàngalee euh, gën a euh, xarañ seen compétence maanaam seen mën-mën ci liggéey boobu nga xam ne moom la ñuy def également gën a euh, xarañ loolu mooy objectifu ndaje bi. ngir gën ko mën a ñoŋal nag ak lëkkaloo gu yaatu daanu ko amal ak université Cheikh Anta Diop Ndakaaru nga xam ne sax seeni ndaw teewoon nañu ci jotaay bi nu mel. ñi seq université bi nuye nañ déjà partenariat tacite. bu ñuy mën a dimbale ba nga xamante ni lépp lu fiy xalaat wala lépp lu fiy tëraleen luñ ci gis lu ñu yaakaar ne war na mën a gën a ñoŋal bu soobee yàlla dinañ ñëw danañ ko fësal dinañ def ba nga xamante ni daal université bii di suñuy université benn université euh, du du du mën a jàpp ne yem naa moom ci lenn waaw dafa war a raw université yëpp te loolu lu mën a nekk la gëm nañ ko te danañ ci liggéey ba nga xamante ni suñu borom dinañ ci defal ndam. ndajeem tàggat mii nag. na mu nanu ko nag ba ci dibeer gi.